sëriñ Moustapha it lañu ko waxoon ci wàllu gàmmu gi di ko laaj naka lañ ciy doxale wax na ci ak moom lim ñu wax ni nañ ko def ñu ngi ci te moo di lépp lu ngeen daan def ci ay daje ci ay waxtaan luy yëwénal gàmmu gi def leen ko nee na la ko xalifa bi wax bu nu ca àggee dinaa génn def benn communiqué ñu door a xam nag naka la ñuy gàmmoo loolu ba ci sëñ Moustapha ñëwee wax ñu ko ni loolu la ko xalifa bi wax ñu ngi ci loolu kon dina jaadu yéen ñi nga xam yéene acteurs yi te wóor na ma ni kenn ku ci nekk saa boo xëyee balaa jant bee so lu ëpp fukki nit dina la woon leen ndax dinañ gàmm mais du ngeen am réponse ñun ñi it ku ci bokk ñu bokk ak yow tarbiya bi bokk ak yow pas-pas bi ak liggéey boo ñu laajee lii lañ lay wax bu ñu ko bokkul it